alxuraan la xamee boo waree nee naa la saako yi leen laa ilaaha illallah tabarkalla koo fi gënul gënu la waa jàngee ñu bokk mbiri naa nag te yàqu ci dara di teral ñëpp di defar ñëpp macha allah fa tabarkalla ba ñuy xale ba léegi dara ñaaw comme nee na mu romb yow maanaam 2012 c'était 2012 moo baax dégg ma tubaab maskin kenn ko ah defal ko nii la bëgg. <laughs> yow dina ko tuuti nag turandoo turandoo dina tuuti sa bopp doom. defal ko la bëgg.